ku am bët yu neex du dugg sa bopp ndax booba dëkk bi ñetti guuxu ndox yoo yoon naan képp da lay të ndox amu fi aw yoon amu fi ak gott la muy wax jumaa ji ni mu nar a rafete ak ni ko may jumaa ji ni muy mel nga xam ne moom bu doon ci zahir da nga naan defar nañ maquette bu boon ko ba mu gis ko ba xam ne muy mel waaye boobu ñi mënta dégg ay waxam da leen di jaaxal waaye ci yooyu jamono la waxoon ne sama jumaa ji nag bu noppee sëriñ bu bi ak borom sam ñoo ma ciy jiiteel kon waxe sëñ bi wax ju xare dégg la moo ne ba nëgëni day gisaguma ku ci jiite ku ñaar ñu doonut ismaam buso buso yi ci ne yëpp suñ buso bi seen maam benn sëñ Maamun mii nga xam ne mooy jiite mooy ji mooy imaam ju mag ji di jiite ajjuma suñ Mbàkke Buso moo ko jur sëñ Buso bee ko jur sëñ Aafe ak sëñ Baara seen ñaari waajur ñoo bokk lépp te sëñ Aafe mi bokk soxna aw Buso lépp di doomi sëñ Buso bi moo leen jur waaye yëmu ca borom saam ji day feeñ ba ci seen seen néegum ndey sax ñoom ñooñu seen ndey borom saama ko jur waaye ba ci ñi ciy naafile boo seetloo sëti borom sa am lañ kon jumaa ji ba na gën a génnul ñaar suñ bokkoon suñ bosoo bi ak borom sa am ñoo may jiital sama jàkk ji waxe sëñ Tuubaa nag ñàkk xam lam lam jubloo wax waaye waxam jépp noonu la mel loo gisagut wala loo xamut mu ci jublu waaye lu mu wax lu mu am ba noppi la lu ko borom may ba mu teg ci bëtam di ko nettali kon nag ku am xaasi bokk ci ñi koy liggéeyal ci jumaa ji war ngaa yàlla bu baax a baax ndax nag noo ngi tàllal loxo ci liggéey bi. bi nga xam ne ñoom la sëriñ bi tuddee muqaddamatul xidma ñuy jàmbaar yoo xam ne eh, ay taalibe lañ waaye ay bokk lañ jaay bokk gandi ko seeni maam wala seeni baay defe woon ci sëriñ bi ba tey jii ñu def noone nga xam ne sëriñ bi moom tool bi dafa yaatu tool bi dafa yaatu fenn fu ne teg na fa mbooloo wutal leen jëwriñ ñu ànd di ko liggéeyal foofu ndax fu lis fu tool fu lislaam yegg rek fa la toolub Sëriñ Tuubaa bi yegg yéen nag daayira Muxaddamatul Xidma bi ñu wax sëñ bi da ko tuddoon bu yàgg jëkk mu yam te waar wi ngeen féete day waaru am solo ndax sëñ baa ngi wax fa kullu man xadama ni aw saara xadama boobu mooy xadma te bis boobu itam da ngeen ñee duggaat ci biir tax xarat ci yow ma sabti saamina xasal li xidmatil moxtaare ba tey xidma duggaat na ci yéen kon yéen mille chance ngeen am nekk ci dëkkub sëñ Tuubaa di taalibeem boole ci di mbokk la ba noppi di xëy ci moom suba ngoon lu ko gën a boo gisee mag ñi ku mel ni sëñ Saliou daan nanguwu ñu tudd turu sëñ Tuubaa lu bari di ko tudd nee na tur li tax nga war koo tudd mooy lu mel ne tremblement de terre amoon suuf si yëngu nga tudd ko suuf si di tekk ñoom ñii nag yàlla dafa def am lu leen sëriñ bi sase te lim leen sase nag di sas bu diis waaye nag sëriñ Touba bu la joxee ndigalit dalay wutalu tey mën naa am yan bi lu mu diis diis dalay tiim waaye du wàcc ci sa bopp yàlla na seen yan bi mel noonu ci yéen ah, yéen nag li ma leen di ñaaxee rek ngeen xam ni lii ngeen fekk baax mooy seen ndono te gëm naa ne li seen maam yi waxoon fii sëriñ bi ci dëkk bii la woon am na ñooñ da leen doon bindloo ñii mu leen di jàngaloo ba bis bu dikk ne ko danoo bëggoon a fekki sunu moroom yee ndax noonu dikkuñ fi di xañ du bokk te buñ nekkee ci ker gi liggéey bi ñuy def ci kër day mel ne noonu danoo wuteeg ñee nekk ci tool yi di gor ak a yett ak a bay sëriñ bi ne leen lool man ngeen ko de waaye nag du leen jëriñ dara li leen di jariñ mooy liñ leen def loo liñ leen digal ngeen def ko liñ leen tere ngeen bàyyi ko kon yëf yi ci ndigal la nekk jëfe ndigal waaye nekkul ci di dàkk say bëgg-bëgg xam naa ni yéen ñii nag tey pas-pas boobee mi ngi ci yéen loolu moom xam naa ci yéen bu bari ci euh, bu yàgg euh, tey ji gisuma lu ci soppiku xidma moom jàpp naa ne benn murit boo naan bokkoo ci xidma mu di ko nangu du xanaa aw bokk yi yéen rek lay doon waaye ku ci nanguwut a bokk amut ndax xin moom mooy lépp ci yoon wi kon nag ndokk bi nu ci boole bi ngeen nu ci nangoo boole ndax liggéey la boo xam ne yàgg naa leen a wax ne lu ku ci bëgg a bokk rek bokk ci sëriñ bi mooy tànn ñu ko doy mu dugal leen ci liggéey boobu kon nag la ko gën a ñor muy jumaa ji la ko gën a ñor muy julli juróom la ko gën a ñor mooy alxuraan la ko gën a ñor mooy weeru koor kon nag jëmmi lislaam lañ leen dénk. ñu ñoo xam ne mbooloo moo xam ne maa ko waxtu su rek daal ndey euh, nun murit yëpp ñoo war a taxaw ànd ak ñoom ci lii ndax du ñoo xam ne dañaan leen kat ñëw leen ñu fay leen ngeen def nagam nagam déedéet dañoo xam ne kat seeni waajur ñoo ci nekkoon. sëriñ bi féetale woon lan ko muy axalu bu soobe ak ñi àndal ñu nekk ca di liggéey di liggéey ba sa boroom wàcc leen liggéey boobee ñoom ñu ne wóotu leen ci loola du pël pay guñ ci am gurut gu fay sëñ Tuubaa doon sëkk yaa leen si doo fay ñu nekk ci di jëfal sëñ Tuubaa defal lépp coono yooyu ñu jàngalankoon nag nun murid ñoo leen ko war a jàppale tegal ko ca mooy waa Muxaddamatul Xidma gi nga xam ne ñoo fi ñëwante doxtaan ndigal nag mooy li am njariñ lu dul ndigal amul njariñ te xamal ni ab sëriñ du bëgg nit ba fa am njariñ jox ko te topp ndigalam boo bëggatee ci sab sëriñ lan na njariñ jox koy njariñ sëriñ ku koy joxe njariñ mu dee jox ay njariñ bul jeey sa bopp bu ko nag xamal ne kat déefu la jox lu dul li ngay defa ko wax ak dëgg daal am xorom loolu sëñ bay jaxate wax kon nan ànd ak sëñ Tuubaa nañ war a ànd ak moom te jox ko gëddaam sàmmanteeg moom. tàmbale ko suñu jëmmi bopp euh, damaa jàpp ne daal li alquran di wax ne in tansurullaha yansurkum yàlla soxlawul ndimbalul kenn waaye day wax ne dimbali leen yàlla mu dimbali leen loolu mooy lim teg ne bu ngeen ko defee mu jox leen dimbalam aw leen ci may kaw lay mu mën leen a ndax ñu sëñ bi tànn teg leen ci ak wetam ñu mat lañ ñu matal lañ waaw te it li leen mat a sant yàlla mooy su ngeen fa nekkuloon nu ñu ñoo faroon nekk kon nag ñaanal leen ak jàppaleen moo na war hmm. ndigal nag sëñ Abdoulaye daa dafa dafa dafa tàng ni kani waxee ne xorom xam nga kani dafa tàng xorom moo wex waaye soo ci duggee day mujj sedd ne galaas neexe ni lem noonu la ndigal mel di leen xamal ne lii leen sëriñ bi def bu leen ko xam ne ak ngeen nekkaloon ko ci tool yi di bay wala ngeen di ngox ñooyam fekkee ne eh, am ngeen tawfeex yi di ko def di ñibbi ci seeni kër day seen tawfeex ju leen suñu borom waaye lu nit di jëlee ci àll ba man ngeen ko cee jëlee ci seen positif loolu moom wér ndax wax ju ko ci sëriñ Tuubaa ndax euh, murid moom njërte waxal leen lu génn sëriñ bi nee na sëriñ bi nag yàlla daa def moom yàlla nee ak yonent bi nee na moo tax soxlawutoon buy wax di ndax yàlla li mu wax mi ngi ci alxuraan bi yonent bi li wax mi ngi ci euh, ahadis yi kon kooku moom moo tax danaan toog rek ba ñëpp di li ci kon nag yéen am ngeen sas bu rëy ndax nag noonu la seen maam yi mu eh, woon ak sëriñ bi seen bàyyi nekke ko nekkee ko ak suñ bàyyi fekkee nañ ci lu bari dégg ci lu bari kon nag tey ci seeni loxo la nekk fii la leen sëriñ bi féetale wal tudxil musliha fi yadi wa fi daari wa thabbitanhu bilhaadi alwafi